ndax daa mel ni sonn na ci ñun lool ndeysaan Mbàkke sëñ Muntaxa Gore moo baax Mbàkke te lu baax rek la bëgg sëriñ Touba rek lay dox yërmandeen ci ci sunu jëmm yi nga xam ni ndeysaan saa suy wax mu ngi wax dayob seen béy ndeysaan baax gi mu baax dem na ba sax bi sëñ Béthio sunu yoon nekkul ci ko ndax Serigne Saliou te mooy Serigne Touba yoonam a nga ca lu daa baax rek moo tax nañu rafetal doxin bi nañ leen doon ay taalube waaw nañu nañu murite xasaay ci sëñ Touba yi nga xam ni ni mu neexee li ci sëñ Touba wax lépp li ci sëñ Touba def ci ci ngëneel nga xam ne mën nañuy toog fii ba six heures du matin hmm. gaañe di ko jàng te sëriñ bi dimbali nañu ba defal ñu ci suñu biir hmm. ñu mokkal ñu mokkal ñu ko xam man ko daan ko defal sëriñ Sall am nañ fi ay werekaan yoo xam ni ñu ci mel ni ay Ibrahima Diagne ñoom Babacar Seck ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Tawfekh Mbaye ñoom Papa Gueye bi ñoom Xaadim Jaaj Jaaj Jën nga xam ni way Serigne Touba kenn maam Moussa Ka ca Jaxate waaw loola lu lu lu dagan la lu baax la waaye nan ko sellal nan ko rafetal yenn folklore ñu wàññi ko waaw ah folklore bi bari soxna yi gis naa ni maa ngi leen di félicité gis naa ni léegi ñu ngi ñu ñu ngi teg ci bopp yi ñu ngi koy ñu ngi koy musóor di ko defal waaw nag gis naa bu leen ko bàyyee day leen muuru na lépp yees doxin doxin wu yees li sëriñ bi bëgg nañ koy def waaw boo deful li sëriñ bi bëgg nooy amee ngërëm boo bëggee ngërëm da ngay def li sëriñ bi bëgg waaye boo ko deful doon ngërëm kon yéen jigéen yi maa ngi leen di sant gis naa ni am na sax ci benn benn yoo xam ni waaw waaye ku fi ñëwati na ngay teg sa bopp laa na muur digal naa leen man maay seen naa leen daal moom laa bëgg damaa bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaw ñu ñu ñu am une complicité man ak yéen lu ñuy ñuy waxtaan di gindikoo bu ko defee nawoon rek lay demee waaw de telle sorte que maa di sant wax lu mu gudd gudd lu mu gàtt gàtt du ma doyal jàkkaarloo yéen ndax yéen day man de lu ngeen ma bëgg maa leen ko raw ndax li tax mooy da ngeen a bëgg lu dul seen njëriñ te man jàpp naa ne kenn gënu maa bëgg seen njëriñ déedéet man nit on ne peut pas nit mënu maa gën a bëgg sëñ bi c'est pas possible moo tax gëmewuma leen ñëpp ñëpp yéen ñeneen ñi ñàpp sax euh, am naa lu ma demee ak ñoom sax wallaay billaay barke Serigne Saliou Mbacké ñoom ñëpp laa yem ñoom ñëpp laa yem bëggaluma kenn lu dul safaan jàmm laa yéene ñëpp ndax xam naa ni sëñ Béthio rek la ñuy te fu waay ne njabootug sëriñ bi kon njabootug sëriñ bi nag ñooy sama njaboot waaw ndeysaan lii sëriñ bi di wax keroog ci télé bi mel na ni ndeysaan am naa lu ma yëg ci sama xol waaw ndax yéenewuma kenn lenn lu lu baax ma sañoon ñëpp am lu baax ba tax na waaye nag sëriñ bi def na ci ndox mu sedd ndax jéggal na ñëpp yàlla na sëriñ bi def njéggal googu tàbbi ci xol yi ba ñëpp ñëw alaare maa ngi bëgg lool nag di sant ñëpp seen siyaaru tey bi daal na ngeen xam ni neex na alhamdulilah lamin mbégte fii nga fi tàbbal sëriñ Saliou yàlla na la wax amiin dugal nga fi mbégte tàbbal nga ci xol yi nañ daan siyaare sëriñ bi indi na ci man ma bëgg a siyaare ji sëriñ Cheikh ko ah, waaw kon nañ ko waajal dinaa jàpp date bi ginnaaw bu ma ci waxtaanee ak moom ndax damaa bëggul a def dara loo xam ni yëgaluma ko ko danaa dem ci moom danaa ko sàkku ci moom danaa ko ñaan mu may ñu ñu siyaare si jërëjëf bu ko defee ñu mobiliser wu mbooloo mu takk la dox nañu waajal ay yëf ay addiya noonu rek ko sëriñ bi daan defale sëriñ Sall objet ay bagages ah waaw ay na doon siyaar bu xóot te neex ku ne gàtt bu ko defee ñu def ko ab dimanche Touba bu fa kenn xat ñu waajee jàmbatul maxwa dox ñëw Touba ca pencum sëriñ Béthio dox wutal ko café café ak suukar si nga xam ne moo jëm ci daara ndeysaan biñ ci waxee moo bari yërmande bi ma bi ma bi ma ko waxee ba ma delluwaat fa di yëglu yónni sëñ Babacar Mbaye ni sëñ Babacar boo demee neel sëñ Cheikh café boobu moo doon wax kim la waroon a booleel na la booleel moom mu yónni sëñ Abdou Khadim daal ne waaw moom day dama koy ñeewante lool ak màggal di jub si naa dañ bàyyi ba màggal gi wees bu weesoo mu doog ciy tàpp màggal gi nag wees na dëgg la gàmmo gaa ngi fi waaye ndigalam ni moo loolu benn ba tax na maa ngi koy yëgal bokki taalibe yi nañ ko waajal jëwriñ yi nañu organisé wu sëñ Babacar na nga delluwaat ñu wax la nu muy demee bu ko defee bu ñu fi dellu soitee samedi ñu xayma bu ko defee ñu daal koy jëf dóor ko mu daanu buñ ko dóoree mu daanu dana fekk ma wax ak moom mu jox ñu bis buñ koy siyaare buñ koy siyaare bi yóbbaale waaw